asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 15 janvier 2020 ñu ñëw ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record wala leewtoo point net fu nekk ay xibaar yi làmb tey xëyati na fa fa nga xam ne nag mooy sunu làmb noom ka nekk ci xët bu njëkk ba Balla gay numéro 2 la ànd ak ka nga xam ne mooy xarit ba di bàyyi Ndiaye Balla nag wala boog Baye njaay mooy wax bàyyi daal la mu xamle daal nee na leer ba leer daal gaynde géejawaay gi mbër mi di Balla moom fi mu nekk nii moom desaa def na soo am ba pare maanaam tànn na ka muy bëreel na kon coow li moom war naa dak fi mu nekk nii Balla daal Baye moo xëy di wax nee na tànn na de moo xam ci ki nga xam ne mooy Bombardier la Tapha Tine Boy Niang wala Gris Bordeaux li leer ba leer daal Balla moom tànn na Baye Ndiaye moo wax loolu waaye bu ñu demee fa nga xam ne nii nag mooy ca Leewtoo TV itam Balla mu ngi fay wax ci vidéo boo xam ne daal bu bees teq-teq la Balla la mu xam ne daal ne leer ba leer nag mësuma wax benn yoon ne Boy Niang du ma bëre ak moom waaye nag sama choix moom am naa droit wax ko te la ma choisir mooy ki nga xam ne nii mooy Bombardier Tapha Tine wala Gris Bordeaux ñii ñooy samay adversaire waaye waxi Bombardier moom wala boog waxi Boy Niang ndax du ma bëre moom wala du may bëre moom Balla ne waxuma ko ko suba te man Balla itam duma koy wax loolu muy mel ni kon Balla gën naa leeral diggante mag Boy Niang ca Leewtoo TV ci ab vidéo boo xam ne mu nga fa waaye ka nga xam ne nii nag moom moo di Moussa Ndiaye di président école Balla gay moom it mu ngay wax de nee na li leer ba leer daal Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang bokkuñu sax catégorie bay bëre coow la daal mu mel ni foofa itam mu nga fa feneen foo xam ne moom coow la dugg na fa waaye daa mel ni jeexagul muy diggante fas ak Papa Sow ka nga xam ne nag mooy wayjuru Papa Sow moo xëy tey ngar jaajoo yëglikaay bi di sunu làmb muy Ali Sow wax fa lu leer nañ na faas daal li ñu mënta nangu wala ñu mën koo muñ mooy copinage maanaam daal ànd rawatina àndu mun la Papa Sow lii moo neexul waa faas nee na coow li lépp loolu dong la te mbay gi itam toujours saa yu xëyee rek mu ngay jël ay bolom ak i xeeram di ko dóor ci kaw ki nga xam ne moo di Papa Sow waaye yemu ca de moom Aly Sow ba tey wax na ne na ki nga xam ne nii moom mooy Tapha Gueye la mu def ci digganteem ak Balla Gaye maanaam jàppale ko ci préparation ngir mu daan Modou Lo ne na loola xanaa moo gën a garaaw fukki yoon ak juróom li Papa Sow dof kon daal moom jàpp na ne kon Fass fi mu nekk nii moom la leen neex la ñuy def waaye li nga xam ne nii moo di aw yoon moom jaaruñu ca ba di ca jaarale kenn kenn koo xam ne nii moom xëy na tamit ngar daa jóob yëglikaay wax fay soxlaam mooy Siteu bàyyi faalu lam saar ba daal tarkindaa ba day moom ne na fi mu nekk nii daal li leer ba leer diggante ak Papa Sow de jàpp na ne làmb la joo xam ne nii day du nar a tàng nar a metti techniquement ak lépp lu mu laaj Siteu daal nee na li leer ba leer moom mu ngi dalal ay xelu supporter am de eh, leen nañ gis Siteu boo xam ne day bu bees teq-teq lay doon buñ ca yeggee war a bés jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Papa Sow loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di Siteu waaye laaj nañ ko ca ka nga xam ne mooy dëkk dëkkandoo Papa Sow ba di sos ci taxawaayam ak làmbam mu ne sos day mbër mu mag a mag la champion bu rëy rëy la dana bàyyi na làmb ji waaye mu ngay def ay actes yoo xam ne day yu noble la maanaam ci loo xam ne jëmale ko ci réew mi ak avancement wu li nga xam ne moo di réew mi nee na tamit làmbam ak guy gi ñëw na ca ba tey ci recours ci waxtaan woo xam ne moom tamit waxtaan na ko ak ñoom Siteu daal la mu xam ne day nee na diggante ma guy gi ba mu ñàkkee combat ba nee na lu ne wax nañ ma ko dégg naa ci lu bu ma neexoon day làmb ja mënoon naa koo bañ a bëre ndax blessure ba ma am jour boobu su ma ko wane woon yaakaar naa ne kon làmb ja am waaye ne la tax ma bëre maanaam bu ma ko bëriwu kon kon làmb dina gën a dugg ci ay problème crise dina ci gën a bëri ne ne li tax mu bëree mel ni kon Siteu daal tey xëy na séq ak waa record waxtaan wu yaatoo yaatu waaye bu ñu demee fa nga xam ne nag moom moo di ca Leewtoo point moom lañ ñuy xamal mooy li leer ba leer nag recours ya nga xam ne dugalal nañ ko fa nga xam ne mooy ca CNG bokk na bu Tapha Mbeur ak Alioune Seye Junior Leewtoo point nañu ne nag bu Tapha Mbeur ak Alioune Seye na Tapha Mbeur jox nañ ko ndam ne ko yaa daan ki nga xam ne mooy Alioune Sèye Junior waaye yemuñu ca ba tey mu mel ni tamit ka nga xam ne nii moom moo di mbërum ngor ma wala mbërum yoof ma bokk wala ngor loo ci mën a dégg itam moom mi nga xam ne moom moo di xeeru ngor numéro 2 daal digganteem ma ka nga xam ne mooy boo yëmbal moom itam jox nañ ko ndam ci kaw boo yëmbal ndax moom itam daa defoon recours ndax daa jàppoon ne moom moo daan mu mel ni que kon daal recours yi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 maa ngi la koy delloo Ndeye Coumba Fall di la nuyu yow di la jaar di nuyu ñuy suivre ci Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi. Babacar ñu ñëw nag ak sunu lam sunu lam dafa xëy na dala ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye rakku Aziz Ndiaye moom daal dafa mel ni dafa waxtaan bi daal moom la tëj nee na Balla def na choix am bu pare diggante Bombardier Tapha Tine Boy Niang 2 ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux waaw Baye Ndiaye de su waxee si Balla valable na yaakaar naa ne <laughs> ku ne gis na seen diggante ca xale ba tey ñu nekk ay mag yaa ngi dégg kon su xëyee tey ci yëglikaay mu ne Balla def na suwaam waaw kon yaakaar naa kon ñoom xam nañ ki ñu war a bëreel ba pare nañ ba pare xëy na nag comme loolu la fi wax potum biir néeg la dañ koy denc ñoom waaye itam yaakaar naa ne bu ñu demee ba tey ca Leewtoo TV bali démb defe naa wax na fa yaa ngi dégg. ah dinañ ci ñëwaat waaye loo ci mën a dégg daal euh, lii Baye Ndiaye wax moom ah nañ ko topp ndax Baye Ndiaye su waxee moom yaakaar naa ne day mel ni wax ji day dal di bëgg ferenkulaayu keneen ki nga xam nag moo bokkul gis-gis ak ki nga xam ne mooy Ba Ndiaye moom mooy Moussa Ndiaye président école de lutte Balla Gaye moom daal lu ma gis nee na Boy Niang ak Balla Gaye il boxe pas dans la même maanaam daal cour récréation moo leen boole boole bokkunu classe waaw du moroomam pour moom ba ah, ah, moom Moussa moom dafa jàpp ne ñoom ñaar du ñuy moroom bay bëri waaw mais nag euh, lamb moo mel noonu lamb dug maas dabante la olof dañ koy faral di wax xëy na tey suñu demee ay bay wax naan Boy Niang ak Balla Gaye xëy na lamb yi doxee noonu garab la ci kaw lay fekkante waaye nag Euh, comme la ma doon wax laay waxaat rek làmb jooju daal pour mu am ci Balla Gaye la dépendre waaw Balla Gaye daal su ko neexan tey mook estafam combat ak Boy Niang taxaw yaa ngi dégg booy Niang nag combat bi du yàgg ci moom parce que li tax mooy la ma la waxoon démb rek garab gi neex na torop te gaa yaa tong ca kaw te ñoom it dañoo bëgg yëg lekk ci garab gi te moom jàpp na ne Balla moo ko war a joxloo actuellement pour mu lekk ci garab gi waaw Babacar nag am na tey junaa nag mu dala ki nga xam ne tàmm sax di wax si si si si média mooy Ali Sow di papay Papa dafa mel nag léegi sëy ba diggante Papa Sow ak Fass tas na carrément ndax lii nu xëy tey euh, euh, Ali Sow génn wax loolu dafa mel daal Babacar diggante Papa Sow ak Fass mbir ba jeex na ndax wax na lu bëre bëre ne ni ki nga xam ne mooy Mbaye Gueye premier tigre de Fass musul di ki nga xam ne moom mooy Papa Sow mooy nag waa Fass a metti mooy lii Papa Sow di ànd ki nga xam ne mooy Modou Lo Babacar waaw loolu la wax moom père Ali Sow Papa Sow waa nekk tamit ku yàgg ànd ak Mbaye Gueye comme li may wax la rek àddina moom dafa doy waar yaa ngi dégg li olof yi wax moo ci ne fekk dog jotul rek jubu weesul moo ke weeru koorayom àddina noonu la ko olof Njaay di léebe waaye yaakaar naa ne euh, Mbaye Gueye ak Ali Sow moom dafa naa ne cax xale ba tey yàlla def ñu yor ay sët yàlla nañ fi yàgg te ñu ngi ànd lii nag yaakaar naa ne du woon lu gën wala du woon lu gënal kenn koo xam ne nii bëgg nga jàmm parce que li tax mooy koo xam ne eh, yéen a daan ànd séq lu ne yàlla def tey ngeen juróog njaboot ba Papa moom bokk ci ñëw ne ci écurie bi di bëre ah doy na waar mais comme li mu wax tamit moo lay wan ne kon ànd boobu moom jeex na ci diggante papa ak ndax bu jàppee ne Mbaye Guèye masta disére Papa Sow ah loolu doy waar la loolu nag waaw loolu moom yéeme na trop waaw yéeme na trop parce que Mbaye Guèye ak Aliou Sow defe naa ne li leen boole bëri na trop trop trop trop trop est ce que làmb rek la sax laay wax. yaa dégg mais addinaa mel noonu li ci des mooy que li mu wax que ni diggante Modou ak Papa lañ mënul di gérer ah loolu ba euh, li ma wax la rek maanaam. Euh, loo ci mënti dégg daal moo doog ba papa bëri nañ ci làmb yàlla def na bëre boobu ñu jàpp ne day indi ay parcelle ay kilifa dox ba ñu toog ñoom ñaar di ànd ah loolu tamit yaakaar naa ne xëy na euh, warul woon a nekk problème yaa ngi dégg donte que tamit mbër bu ne comme ni ko Alaaji Papa Dieng waxoon rek si benn écrit nga mën a nekk yaa ngi dégg. mbër maanaam am ñaari écrit. non non loolu moom si impossible leneen li ci des tamit mooy que ni wax na ne que ni Tafa Gueye li mu def ci diggante Balla Gaye 2 bi Balla Gaye 2 di bëri moo gën a rëy sax lu Papa Sow def te dara fekk ko ci muy ay mbir yoo xam ne daal vraiment man lu may wax rek na ñu fexe ñoom ñi nga xam ne nii ñooy ay kilifa ñu bañ a sànneen tey xeer bañ a durante ay traak parce que ay kilifa lañu te pour man li leen boole du làmb kese ak njaboota leen boole nekk ay jullit a leen boole dëkk a leen boole deret a leen boole te yooyu defe naa bu taxawee dañuy jël yi des teg ko nële même bu fekkee papa jóge na fa itam mais man su ma sañoon seen diggante nañ ko rafetal moo gën. loolu moo am solo ndax ànd bu yàgg dëgg la te Papa Sow ak Fass ñëpp xam nañu comme lu may lu Papa Dieng di wax rek moom mooy benn mbër bu nekk Fass ba xam ne fa la judd fa la yoro fa màggee te papaam ak euh, suñu laam dañu na ginnaaw euh, na lu ne waaye nag xam nañu contre ni que Siteu ñëwaat na waaw Siteu is back waaw làmb moom moo mel noonu ku ñàkk ñu ñu ñu ñu gars yi des fois ñu la parce que li mooy sénégalais na ma yàlla maa ngi jégluwaat si kàddu bi am na ci ñu ni Babacar ñoo xam ne xamuñu sport daal yaa ngi dégg maanaam boo wala xamuñu defet boo ñàkkee duñ ko teg ci cadre sport mais dañu indi yeneen yoo xam ne mën nañu sax balaa mee jàpp ne yow nangam sangam te si tey la defe naa guy gi ma ko daan guy gi mën naa daan ko dul sitta yaa ngi du ci déedéet nekkul cuuneel kenn yaa ngi dégg kon loolu mooy li xam ne nii ah dina ko may mu xoolaat fi mu jëm xam fi mu jëm diggante ak Papa yaakaar naa du mën a yomb moom diggante Siteu ak Papa Sow ndey Kumba Fall lu doy doy waar kuma bu xatangoongu lu leer nañu laa la wax. loolu am na solo Babacar suñu jegee fi nga xam ne mooy record dañuy dem fi nga xam ni mooy Leewtoo point net Leewtoo point net moom lu ñuy xamal combat bu doxoon diggante Tapha Mbeur ak ki nga xam ni ak Alioune say euh, junior nee na jox nañu ki nga xam ne Alioune say euh, junior. Euh, Tapha Mbeur lañ jox ndam ginnaaw bu arbitre bi joxee woon Alioune say junior. vainqueur ci combat na dimanche. waaw parce que ñu ngi bëri woon ñoom ñaar le 29 décembre yaakaar naa la ñu bëri woon stade bi ah, bi bëre bi amee nag ñu xeex bëre jaxasoo yaa ngi dégg ki nga xam ne mooy Tapha Mbeur wër Alioune Seye Junior bali yàgg ñu jékki-jékki gis mu bàyyi ko keneen daw ñëw jóge fële ñëw kii après ñu arrêté combat bi soufflé waat ko bañ ko soufflé nag Alioune daan ko jël bu leer nañ ci biir géew bi yaa ngi dégg waaw non Alioune Seye moo daan jël bu leer ci biir noonu bi ñu waatee mais nag premier acte boobu premier action ba fa la quatre appuyer la Tapha Mbeur ak waa këram jàpp ne foofa Alioune Sèye Junior dafa daanu ñoom loolu lañ dugaloon recours ba yàlla def tey recours booba ñoom ñu jot ci kon ñu koy féliciter moom Tapha Mbeur di encourager Alioune Sèye Junior parce que loolu mooy comme la ma waxoon rek laay wax man man li arbitre bi décidé ci terrain bi ci loolu laay ànd ba ba leneen di am man ci logique boobu laa nekkoon léegi nag ña yore statué nañu génne nañu ne nañ lii moo am kon la ñu wax ca la Babacar di sukkandiku mooy léegi Tapha Mbeur daan na Alioune Sèye Junior jëli bu leer nañ par quatre appuis boo yëmbal itam ñàkk na ko am digganteem ak ki nga xam ne mooy xeeru ngor par recours bu mu dugaloon mais li ñuy wax mooy Tapha Mbeur dañ koy gën a soññaat ak moo ay morom wala bu mbër yépp ndax pour mu gën a xam ne que làmb moom tamit dee su làmb dee su ko caaxaane mbër la même donte xale ka ay nit a koy topp na suur loolu am na ñoom dañuy fay di la seetaan kon soo ñëwee ci làmb di bëre dalal xoolal la ngay def tegal bëre bi ci yoon yaa ngi dégg loolu mooy li nga xam ne nii moom la war a taxawe moom la ay moromam war a taxawe mais ñoom da gis léegi daal vraiment que ni booy dañuy mel ni ñuy fawee làmb ambiance bi day ëpp ci ñoom ñu ànd ak ñoo xam ne nii ñooñu ñu nit ñu dama naan ay fans lañ fans du sotti mbër gàllaaj Ndeye Coumba Fall parce que fans mooy koo xam ne nii buñ ne Ndeye Coumba Fall sa bët bi suufa ngi ci ka ko ko wax moom balaa kàddoom di daanu mu dóor ko direct ci gémmiñ est-ce noonu lay nekk ak yow ci biir géew bi ñi mën ndax kere gis ko ci diggante Ada kii ku jël saafara sotti ko nit ko xam kooku dalul mbër ki ko yóbbu ci géew dafa war a nekk ku am conscience bu tranquille dal di liir li muy def ne ca la mu war a nekk baat bi suuf li mu bàyyi mbërëm bëri mais booy yi daal fi mu nekk nii ni ñuy doxee moom ah fan non non fan su du fan su du yor cumukaay déedéet ku la ëpp xalaat moo yor sa cumukaay tey gis lu ñëwagul di ko sóor di ci bàyyi xel di la ko wax koo koy jubbanti mbër am na solo Babacar su ma xëyee Lion de waaye ak euh, xel yëpp dem nag si xam ne mooy Balla Gaye démb nag moo dalaloon euh, Babacar ak équipe Leewtoo TV foofu si waaye Babacar am na waxtaan bu am solo bi nga sekk ak ki nga xam ne l'ancien roi des arènes le fils de Doubalès. waaw Balla démb seq nañu waxtaan bu yaatu ndey Kumba Fall waxtaan bu neex macha allah dem nañ ànd ak moom dem Saal mu liggéey ñu waxtaan. coow li nga xam ne ne moo jóg ci diggante ak Boy Niang ñi naan Balla waxoon ne du ma bëreeg Boy Niang du ma waxuma ko Balla leeral na ko ci Leewtoo TV yaakaar naa ko fa dem di nga fa fekk wax ja moom nee na daal ak Boy Niang. dañoo bàyyi di xool rek moo gën. waaw kon nañu bàyyi kon dem leen ngeen xool ko bu ngeen fa demee daal. sëb la li ko bëtte nga ci biir na nga ca biir du mën a ñàkk. dem leen bu ngeen demee di ngeen ko fa gis lu neexat ne Balla Gaye 2 ci salle bi Balla ak oto ba Balla ak coiffure ba Balla ak dàll ya Balla ak Balla am nga moom moom mu ngi noonu ak ki feemam leer dugg na ci yu baree baree bari daal waxtaan wu neex ma euh, noonu la fay demee ndey kumba Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa ba mu nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu astane DG Barama Chéri Khadija Diallo di gi nga xam ne mooy euh, Abdou Gueye euh, Baye Fallou jàmmagal Papa Sita depuis États-Unis aussi maa ngi koy nuyu ki nga xam ni mooy Khoudia Sey Khoudia Seck chéri à euh, Seck depuis Italie aussi maa ngi koy nuyu nuyu ki nga xam ne moom mooy Mbaye Seye depuis la France di nuyu Iba suñu gàddu koor Leewtoo di nuyu ki nga xam ne mooy Baba di nuyu ki nga xam ne mooy Momo Mané di nuyu ki nga xam ne aussi mooy Sedo Babacar. waa ndeysaan noonu la fay demee ah Iba ibaa borom baax la Baye Fall la borom Pikine bàyyi Alima Ndion Iba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yal na sa jàmm yàgg di nuyu waat yàgg maar xam nga di nuyu ñaari joor yi joor Jóob ak joor jaag noonu la demee. Aïcha duñ ko fàtte yaayi paate mais du ñu ñi nga xam tamit ñoom ñuy suivre ñëpp. séeri séeri Reysa ah. kon Reysa ndey ku ma nga góor góor lu ci séddo nga gën koo teel a wax xaw ma nag lu xew ndey ku ko wax de Reysa waxuma ko mu ngi nii nena nga gën a téye sa boroom kër waa alali golo ca lex ba loolu la ñu wax Reysa kon jëlal loolu mais <laughs> di nuyu. sama gars yi ñoom Rimka Couture xam nga boroom si sa door bi maa ngi koy nuyu Saliou Khoule xam nga du ma ko fàtte di nuyu ki nga xam ne tamit mooy Fallou Fallou ñaa xam nga doomu ndeyu Garga 2 ak Boy Faye wala Garga 1 maa koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi suivre waa Maroc waa Tunisie Algérie Norvège da baax maa ngi koy nuyu ñoom tey nga génn waaw du mën a ñàkk maa nga jëm bëri si xam nga da baax ñu ñëpp. nga dóor ji. waaw dóor yi dóor mën ta ñàkk nday Kumba Fall si Abdoulaye noonu ne géwél amul ku la defal lu baax nga wax ko mbaax dees koy wax xam nga ki lay suivre di bind ci yow di la topp di la woo téléphone di rafetlu sa liggéey kooku boo ko newul jërëjëf pour man goree di nga dañuy bañ a nekk ñu goree di yàlla na ñëpp am jàmm waaye Balla nag démb moom. teraanga bu rëy waaw defal na ma teraanga de. parce que mel ni gars yi comme ñu wax rek jig jigéen nga de. démb suba am nga am nga teraanga Balla de démb jox na may daal yu rafet a rafet nday Kumba te bii mooy deuxième fois mu di ko def waaw kon daal mbër yi maa ngi ñoom a far ñoom ñëpp samay waay lañu ndax Modou loo itam jaar na ak man fu mel noonu parce que am na yoo xam ne di ko wax dafa am solo te ñoom ñëpp ku ci ne ku ci gis Babacar da nga def loolu ñoom ñëpp dañ koy def ay Boy Niang ay ñoom ñoom tout le monde di ñaanal mbër yëpp yàlla nañu am jàmm et puis yàlla nañu am ay combat am ay kase yu baax parce que dañoo war di bëri teraanga bi gën lu yokk du a ñàkk ñu bokkum ñooy laxasoo ay goj waaw te <laughs> ndey kum ku ku fekke fa ñuy feese moom am nga yaakaar na di nga war a mën a ñam waaw. kon boog Babacar ak ay dóoram ba suba incha